الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بقي نبوك سنت برم سبحانه وتعالى سيرنا من بين بربن ورا جامب دون موم نوغي بالو اق نيب تا دي بالاق تاي نيان سون برم سبحانه وتعالى مو بوكو ني جيجل ني نيب بوكي سونو خطبه تاي خطبه باركيلو لا خطبه لا بو خامني al cheikh Mouhamadul Fadil Mbakke radiallahu taala anhu moo ko defoon di xamle ak a jàngale nun war a màggale Touba muy xutba boo xam ne damay wax ne waxtu wi buñ ci tollee muy waxtu weeru safar tolle jote ah imay ci boppam war na ñoo fàttali nit ñi xutba bi donte benn ajjuma la ngir saa yu tasaaroo kenn ku ci nekk fa ngay bàyyikoo di ñëw Touba danga mën a yëg mën a xam naka la ñuy màggale Touba ndax bariyaa na ñoo xam ne mbokk yi ay kilométrage lañuy lañuy la jugee ñëw ci barab bii di Touba te duñ mën a jariñu ci Touba wala ñu mën a jariñu ci màggal yi ndax ñu ci bari jàpp na ne lekk ak naan képp mooy bi si màggal yi am ci ñoo xam ne danañ dem ba ñëw sax duñ ziyaara ji ñi nga xam ne ñoom lañ war a ziyaara ji am ci ñoo xam ne barabu caaxaanukaay képp la ñuy wër jaral na leen dagg paas ñëw mbàkke bawal mbàkke nga xam ne guddig màggal ñii war a fàttaliku ñu bari ca war cee ca war a góorgóoru ci màggal gi ca muy barab boo xam ne fi la sëñ Tuubaa jamono ñu ci baree bari bu ñëwee dañ koy def barabu caaxaanukaay ñii ña nga ca baal ya ñii ña nga ca dansin ya ñii ña ngay toxu ñii ña nga ca yeneen ak yeneen ca barab bii nga xam ne mooy mbàkke bawal mbokk yi barab la boo xam ne ku dëkk ci dëkk bii wala dëkkoo ci dëkk bi sax war ngaa xam doye bi barab bi am barab boo xam ne fi la sëñ tubaa gën a jamono fi la sëñ tubaa njëkk a tëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam barab boobu bu mat a bàyyi xel ndax sëñ tubaa ne woon li waral ma bëgg mbàkke mooy ñett fi laa gën a jamono fi laa njëkk a tëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi laa njëkk a dund la guddi gàmm nee ñett yooyu moo tax ma bëgg mbàkke baal mbàkke bawal ci dëkk bi tamit bokk yi sekkare bi tax serigne bi radiyallahu taala anhu fonkon ko ba yalla dogal mu gëna ci jamono a cheikh amar fouti tal moy ki nga xamne moko feñalon mo dem mak cheikh amar fouti tal mo dem mak aji tëdd ba guddi gënt suñ borom wonako ben ay alquran mu ne muy inna awwala baytin wudi ala nas lesi bi bakkat mu ñibbi ci mu xey suba mom cheikh amar fouti tal li ma la wax nak bu ngeen demee ci wala fa la sëñ musaaka bi dañ ko ci fekk nee na mu xëy suba laaj ban dëkk moo am ba ak ker ci Sénégal yow nag am na dëkk bu ñuy wax Mbàkke Bawal mu ñibbi si moom Cheikh Amadou Fati Tall ci aj gi ñëw ñëwaat ba fii armeel yi nekk ak jumaa ji kàddu gam doon dégg màkkatal mu karam bu di ko déggaat foofu mu laaj magi Mbàkke fu nekk ñu ne ko ma ngi ci dëkk bu ñuy wax woobe mu dem laaj Mamour Ande Sali ñu ne ko Mamour Ande Sali mi ngi Mbàkke mu jógewaat ci dëkk boobu ñëw fii ci Mbàkke Bawal am ñu ne xuri mbàkk bi mu dikkee Maamoor Anta Sali dalal ko ci nekk soxna Zeyna Mbàkke fekk soxna Zeyna Mbàkke dafa dem seeti benn càmmiñam mu nekk ba guddi soxna Zeyna Mbàkke ñëw xamul ne Maamoor dafa am gan mu dugg ci mu jekk-jekk rek ubbi néegam dugg bi mu dikkee rek fekk si gan Cheikh Omar Fouti bi mu ko xoolee muy jigéen mu bëtti pere sàkkat bi daw magi mbàkke yépp topp nan ko lii la mu ne sëñ moor ana ko dugg ci néeg bi mu ne ko kooku mooy borom néeg bi mu ne ko nan ko dóor yari yoon ndax daf maa njaaloo maam ko kooku mooy borom néeg bi mu ne ko nan ko dóor yari yoon ndax daf maa njaaloo li tax mu ma xool ko wala mu gis ma ca du sama soxla bok yi xool ne loolu xool rek la wax li tax mu xool ma ca ca du sama soxla koro loolu semal fuuti taal wax nan ko dóor yari yoon maam na ko mooy borom néeg bi nga xamee ne nin ko nin ko nettale ci cër bi nee bi mu demee ba foofu ci xuru Mbàkke nga fi nga xam ne fi la ci Tuubaa gën a jamono si Omar dana dal daan bi mu dàllee daanu sëñ Mor daal di daal di wax sanu Seyni Mbàkke na ko dama indi sa lami teqal ma nga jégguloo ko si Omar Fuuti Taal bi mu indi lami teqal lami daal teel boobu moo daan taaru jigéen mu dikk jéggulu ko korog si Omar Fuuti Taal xam lu mu wax dana sëñ Mor maa ngi lay xam ne lépp lu ma naqare woon bés nga ñëw dana ma neex mu ne tekk di ko déglu mu ne ko maa ngi lay xamal bés nga ñëw ki nii wax borom jamono saa yu gënee jamono barab bii ma daanoo si lay gën a jamono te saa yu gënee jamono bu dikkee dootu bàyyi góor ak jigéen di jaxasoo te bu dikkee nitu sariya la goo xam ne lépp lu lislaam santaana ca lay teg tàngam foofee nag foo feex ma fu taar daanu daanu woon te ca barab boobee fa la Cheikh Ahmadou Bamba jamono kon bokk yi mbàkke bawol gi daraa ngi ci ñun nag tëggal fekk ci rek lan ko lan ko yem moo tax mu ne yaa saili an mawlidil makkiyi ahmadu bamba xaadimul makkiyi aw xaadimal makkiyi mawlidu fi mbàkke aama sharain fi bawalin balad ahla shara fi la Sëñ Tuubaa gën a jamono kon nag ku màggal si ku ne bokk yi bul jàpp ne da ngaa ñëw jóge Tuubaa rek lu bon la bëgg a def ñëw defee si ko mbàkke bawol déedéet kon li tax ñu fàttali xutba bi mooy cheikh mamadul fadil radi radiallahu taala anhu moo ko defoon ci màggal tuba waaye di jàngale ak xamle naka lan war a màggale màggalu tuba muy xutba boo xam ne wax naa ne aima yëpp imam yëpp waxtu màggali bu jotee nañ ci war nañ ci jàpp benn ajjuma am mu jëpp di ko fàttali nit ñi cheikh mamadul fadil dafa wax ne képp koo xam ne jàng nga xam-xamu sira muy xam-xamu taarix du nëbb ci yow mukk ne am na ci fan yoo xam ne fan yu nu xam la ci mboolem diine yépp nag diine lislaam ak yeneen yi ñu tudde diine ca lislaam jàppewu ko diine bu ngeen ca demee da ngeen ci gis bis yoo xam ne ña ngi koy wote di ko màggal te am na lu tax ñu di ko wote samadu fadil loolu la wax daane li tàmbale ci jamono gi ba ci jamono yu yi ñu jiitu woon daa di joxe misaal daa di wax ne ku ne xam na ne feetu tëbëski tëbëski bi ñu tëbëski am na lu tax ñu tëbëski mooy diggante Ismaayila ak Ibrahima waa juróom ba si digal gu ko sunu borom digaloon na ko ray ko ci gént gu mu géntoon la ca xew xew ca ba waral muy sababu tabaski mu ne tamit gàmmu am na lu tax ñi di ko def mooy gan ak jamono yonante bi sallallahu alayhi wa sallam gan ak jamono yonante bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Amadou Fadil nee na loolu tax ñuy gàmm daal ne kon lépp lu ngeen gis rek ci taarix ñu di ko def lu ci ëpp ab xew-xew la woon bu xew ba tax ñu jël xew-xew boobu andiwaat ko di ko fàttali waaye maa ngi leen xamal ne Cheikhul Qadim radiyallahu taala anhu digal na mboolem taalibe yépp ak jullit yépp si ñu màggal bis bii nga xam ne ci la génn woon Mbàkke Bari dem liggéey li borom bi subhanahu wa taala خرجت يوم السبت ثامن عشر لختمة المقصر في sahri safar loolu nag Mbàkke Bari la woon jëm naa ci fukk fan ak juróom-ñett ngir liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Omar Fadi wax na ko ne sëriñ bi nee na sant na leen bis boobu saa yu ñëwee ngeen màggal ko bis boobu nag ñaar képp ko waraloon shafi'an li xawmi xadiman fi dawm shafi'an li xawmi mooy képp koo xam ne yaakaar nga ma bu ëllëgee ma ràmm la xaadiman fi dawmi mooy mu doon xadimun li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndax xaadim xadim xaadim kuy liggéey ñu jële fay rek ab xaadim la moo tax suñ tubaab maqaamam du xaadim de xadim la ndax maqaamam xadim moo gën a foor maqaamam xaadim maqaamam xadim moo gën a foor maqaamam xaadim moo waral maqaamam xaadim rasul bo demé ci mukaddima ci benn beuyit seigne touba dogo fa teunk muy maqamam yu bajjilu kulli kulle kalima ma qadi wa in sha'a rabbi la arada xasatain yu bajjilu kulli sa lépp nga yëngal sama lépp yow rasulullah sama lépp nga yëngal sa lépp man ahmadu ma xaadimu rasul yu bajjilu kulli kulle kalima dem ba naan ko di nga tëdd lay tëdd ni ngay doxé lay doxé ni ngay waxé lay ni ngay def lay def lépp loolu moy maqamam xaadimu rasul نبي المصطفى خير وراء غرضي في كل شيء وما أباه يباه وما يباه أباه كن شيخ الفاضل وخنا كن سرين بسانت الليل يب يمجل بسوابه وينك نينا شكرا لله ينيب نيدفكو أكسانت شكرا لله ينيب نيدفكو أكسانت جينا بين كورة أكسانت نك بنا بنا لب لو خمنة نيجل للمتي ديجلي ñu wéyal ndigal loolu ndax nee na jëfa ndigal la mooy sababub ñu mën a jariñu ci bis bi moo tax mu ne min anwaai من أنواع ما تقدم فيتعين كل مريد على كل مريد امتصال أمره بالاتباع التي هو سبب الانتفاع يتوب نديغال ليم دا mooy tax ñu mën a cee jariñu ndigal loolu nag ak nin ko santaanee moom la sëriñ mohamadul fadil duñu wax ngir ku màggal si nga war cee bàyyi xel moo tax mu ne digle ne moom sëñ Moussa Fadil digle naa nag kon ci loolu fépp fu waay nekk na nga fa bawoo koo ñëw Touba sëriñ Fallu ma woote màggal gi Touba mais sëñ Modou Moussa dana woon fu waay ne na nga fa sant la yàlla ak yonante bi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bi Cheikh Ahmadou Fadil Mbàkke gane euh, nekk ci xilafa bi moo ne fépp fu waay nekk na nga ñëw Touba sant na sëñ Touba bésam bi ci bis ci bis dëkkam bi di Touba Cheikh Amadou Fadil moo ko woote Touba waaye Cheikh Moustapha moom dana woon fu waay nekk rek léegi ni ndigal la ku mënta ñëw it fa nga nekk nga def ko fa ku mën a ñëw it nga ñëw ndigal la lee ndigalal doomi Serigne Touba la lii tamit ndigalal doomi Serigne Touba la ndigal lu njëkk la ku mënta ñëw bu fa foo nekk defe ko fa ndigal li ne ku mën a ñëw nga ñëw def na ko su nag day gën a baax. boo dëkkee Mbàkke Bawal bokk yi soo ko mënee def ko fi ci Mbàkke Bawal Mbàkke Bawal ak Touba fii la sëñ Touba gën a bokk yi ku fi màggalee kay am nga màggal màggal ku baax a baax a Touba Mbàkke daanaka ñoo xattala ku munta dem Touba màggaleel Mbàkke ku mun munta màggali ku munta dem Touba Mbàkke ñëwoo dem Touba fa nga mën a nekk màggale waaye sëñ Fallu moom moo wootale na ñëpp ñëw Touba Seex Mustafaa ne woon fu waay ne kon yooyu yëpp ay ndigal bi Cheikh Amadou Fadel waxee loolu ba noppi dafa wax ne ñëw gi ñuy ñëw nag di màggal si nan ci fàgguwaale di sàkkuwaale saadatu daara yi waaye nag ci charte ñu bañ a fox bañ a caaxaan bañ fee def munkar lépp loo xam ne l'islam daf koy tere ñu bàyyi kuy màggal si yëpp donc bàyyi xel foofu wala nga def ci loo xam ne l'islam nangu ko soo dee góor la booy ñëw na nga sol kaftaan bu jot dégg nga mu mu yiw mu baax mu sell foo dem ñu mën laa nawloo boo dee jigéen la nanga mel melokaan col gi ci lislam santaane waaye damaa màggal ci sol col goo xam ne tey jii ku la gis xamul xamul nooy nuru loolu nan koy moytandiku mu jigéen buy màggal si jóge Tuubaa bokk yi na sàmm boppam ni lislam santaane jigéenu jullit ni la war a mel mu mel góor guy màggal si noonu dina sàmm boppam ni lislaam santaane góoru julli ni mu war a mel mel bu mu takk ceen bu mu takk jaaro bu mu bënnum noppam bu mu bu mu wat watiis gu bon dégg nga bu mu sol yére yére yére yére yoo xam ne yére yu doye di la na sol lu jot ku dikk xam ne kii dafa màggal bu dee jigéen ñi na sol yére yu fat yu jot ku dikk xam ne kii dafa màggal waaye léegi-léegi bisu màggal Tuubaa mbokk yi ñu gis loo xam ne ci biir Tuubaa wala ci biir barab yi ay jigéen wala ay góor ko jëf te te wax ne danoo màggal si Touba noonu nag du melokaan yi sëñ Mouhamadou Fadil leen ne bu fi kenn def munkar bu fi kenn tëgg bu fi kenn def ay caaxaan léegi-léegi am na ci ñoo xam ne bokk yi danañ ñëw màggal ji ba ñëw foo am tëgg nekk la ñuy wër fanaanee tëgg yendoo tëgg fekk jaxasoo léegi musique moderne yi daa bari bari na ci loo xam ne dañ naan ña ngay dem ca cant ga na def def nangam musique moderne laa ko tudde yow am na kenn ku teg am na lu sama am dangay ngay delloo sa maam nekkoon léegi nag jamono rëb na da gis ñu bàyyi li seen maam nekkoon dem ci leneen di tëgg ay ay naan ay xiin wala am am am fecc wala am nangam a nangam bëgg yow jaxase la nga xam ne yow dénkuñu ko woon sa maam te mi nga am nag ba ci njaboot gi léegi mi nga am loolu nag lu war a lu war a danoo sa lu war a tere njaboot gi la mbokk yi kon lii suñ fallu wax ne noonu lañ war a màggale képp koo xam ne yaa ngi màggal si na nga góorgóoru ci loolu bu fi def munkar bu fi def lahu bu fi jaaxaan bu fi def dara suñ fàllu nee na loolu bokk na sart yi war a màggale nee na nag bu loolu jàllee màggal gi nan ko màggal ci jàng alquran nan ko màggal bi tilawatil quran ak di tudd yàlla kon ku ko man boo xëyee bala ngaa dem Tuubaa wàccee lubkaan yi soo ko mënul fekkeel fan koy defee nga jàng alquran soo ko mënul yore sa cours de zikar bi tilawatil quran wa zikr la sëñ Fàllu sëñ nee noonu la ñuy màggale bu ñaar yooyu jiitoo ba noppi nee na ñu tëj ca di jàng xasaid wa qiraatul xasaid di jàng xasidi sëñ tubaay di ko jàng njàngin wu neex wu sell nee na bu loola jàllee nag joxaw ñam soog di ñëw itaamu taam ñu soog di soog aw ñam kon bokk yi ñu bari ñam yu leen jiital ci lii am na ñoo xam ne jàpp nañ ne berne beeg yooyu rek la waaye suñ fal dafa wax ne bi tilawatil quran والذكر والقصائد وإتعام إتعام سوق نيو جخو نيو كو دا نجي جانغ القرآن الذكر دي جانغ قصيدة بنوف نك نيام أو نيام سوق نيو نيام ووي تبت نينا ناني سخي يتيمي يغي خمنا أي جيريم لن أكي مسكين يغي خمنا أمو ندرة يو دي لين تفاق غوالي دي لين دي لين waye bari ci fo xam fo xam ne bo ci demé ñata jara ñam li ñoy lekkat ñam bi rek ñom seen biir kep ñoy lekkat duñ togg duñ ko yóbbu ci gaa yi duñ ko naam ñoo koy togg ñoo koy lekkaat kon dangay ngay fexe yettiin yi ak masaakin yi nga fexe jox leen ca bisu màggal ñu mën ñu mën cee jëfandikoo bu loola jàllee ba noppi nag Cheikh Abdoul Fadil nee na nga daal ci jokk ak bokk wa silatu rahim ak lan wa ziyaratu saalihin nga dem ziyaara ji gaañu baax boo demee ci barab yi baax na nga dem ci kër kilifa yi baax na koo yaakaar na kii ak sella nga ci moom ak baax nga ci moom nga dem ziyaara ji ak lépp loo xam ne nuroo nag li ma wax lii bokk na ci li Cheikh Mamadou Fall di wax ne ci nii leen war a màggale kon bokk yi kon kuy kuy màggal point yii nga xam ne moom la sëñ Fall lay màggale na ko bàyyi waale boo ñëwee Touba boo ñëw Touba na ko bàyyi fa bàyyi waale xel fa nga nekk soo toogee Mbàkke na nga ko bàyyi waale xel ci Mbàkke Bawol gi nga ak beneen dëkk bu mën a doon xam ne nii la Cheikh Mamadou Fall di wax ne mooy melokaan yi nga xam ne moom lañ war a màggale bokk yi gannaaw bi mu xeli nag daal di wax ne diisoo naa ci ñi nga xam ne ñooy waa dawla bi mooy waa nguur gi rek ci bépp matukaay boo xam ne war nañ koo jël ngir ñu mën a aar doomu aadama yi ak yeneen ak yépp ba ñu mën koo defee nam ware kon nag maa ngi leen di dénk di dénk saa bopp na ngeen ragal yàlla ci topp ay mbiram te moytandiku ay tereem daan na kat al amru bil wan nahyu anil munkar haytu kuntum fu ngeen mën a nekk dee leen digle lu baax ak a tere lu bon fu ngeen mën a nekk damay wax ne toujours digle lu baax tere lu bon mu kallaf mu nekk war la waaye ki gën a war a warati nag mooy kii ki am responsabilité ami njaboot wala mu dib sëriñ doo ngay topp ci gannaaw su boobaa na bàyyi xel doo ngay ci gannaaw bu dee njaboot gi na nga bàyyi xel di leen digal lu baax tere lu bon yow diglee la war a diglee rek yàlla mooy jubal nit waaye li la war a def ko waaye lépp loo gis na lii jaaduwul nga tere ko waaye bu ca noppi bul la ci dee xasaka lu nga ca yem fii nag jamono nag fu mu soo diglee lu loo soo fekkee loo xam ne munkar la yàlla santaane ko nga koo dindi ñu ne boo këram fekk ko fa nan ko fekk sa kër waaye tereel rek yàlla moom lim tere tere ko lim digal digle ko ko fekkee sa kër la la war a def ko digle nga tere nga waaye tereel bu dee taalibee siyaara si na ñëw nga fekk ci moom ji taalibe bi teg ceen nee ko eh ceen gi teg waaye nag bu dee sëriñ si nga xam ne moom daanaka ambulo yi lañuy xool wala addiya ji duun ji wala ndangam ak ndangam wala xala xaalis beeg ndangam da ngay gis soo xam ne ab ab taalibe li yor du jeex indi woo xam ne du melokaanu taalibe sëñ bi naan am nga taalibe am nag taalibe waaye taalibe gi def na li sariya nangu ci jëmmam ji nañ fexe mu dañ ci moom loolu ci bàyyi xel moo tax sëñ suñu borom nee na dee leen digli lu baax tey teral ban xay su kuntum fu ngeen mën a nekk daal di indi aaya fa man yamal misqaala charratin xayran yara wa man yamal misqaala charratin charran yara daan maa ngi leen di digal tamit na ngeen doon benn waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu na ngeen jàpp ci buumu yàlla gi te bu leen teqali ko huwa asadu an la ilaha illa allah wa asadu anna muhammadan rasulullah def ko sab xarit def ko sab sab àndandoo bu kenn noonoo kenn fala taadu man raaytum faaw rajo laa ilaha illa allah sëñ Tuubaa ne ku leen gis muy wax laa illa bu leen ko def am noonu noonu benn la muy iblis léegi nag jullit yi ñooy noonoo jullit seen bii ci boppam ñooy noonoo cat noonu kenn la muy iblis ku la arrangé wut nga def neexuma dégg nga lu la arrangé wut suma nga def nangam yooyu nag yàlla nee na wa'tasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu kon nag yonent bi sansam nee na na ngeen ragal yàlla ca fexee lu rafet lu ñaaw fu lu ñaaw nekk jéem neen faa defee rafet mu rafet lu ñaaw la effacé wu te ngeen jub jëflanteeg doomu aadama yi jëfla jëflante bu rafet wa xaaliq naas bi xuluqin hasan na ngeen jëflanteeg doomu aadama yi jëflante bu rafet loolu moo doon xutba bi nga xam ne sëñ Mouhamadul Fadil Mbàkke defoon na ko ci màggalu Tuba ngir wax nit ñi ni ñuy màggale kon mbokk yi kii ñëw ak ki fi ne ak kii waa ñi ñëw wala ki bëgg a ñëw nan xam ni ñuy ñëwee te ku ñëw na na nga ñëwee mu doon lu dëppoog li nga xam ne moom la sëriñ bi santaane ngir ñu defe ko màggalu Tuuba na yàlla fa dëgg ak toog yal nañ ci yàlla àggale jàmm suñu borom may ñu wir akuk tal akuk fan ba man ba man koo fekke te kenn ku ci nekk la nga war a def yàlla jàppandal la ko nga def ko ci zahiran wa batina yaqfirullahu lana wa lakum wa li shaari muslimina amin